nit ku baax ku yiw ku yaat maanu bëgg nit respecté doomu aadama ñi boot ci ginnaawam bari torop reyul kenn nit doon àddina la rey bëgg nañ wax mais xol bi mooñ ko may mais justice na def liggéeyam justice soit fait daal parce que fekk nit ci appartement am néewal ko doole ba ko loolu ñaaw la mais dañ naan justice waa fe dañu ñaan justice daa def liggéeyam. tey bi nga ñëwee nga fokk bokk ak nga xam ne nga nekk doomu ginnaaw gaay euh, crime bi bari na ci bu nekk ki nga xam ne moom la ñu ciblé moom la ñu wax ni ko yoon teg loxo muy ki nga xam ne moo di Nabou Leye euh, nan nga gis ni moom la daan dundee ak sa ndijaay. fu mu ko mësaane gis damay gis Nabou si ginnaawam luñ naan peut que dëmm rey la jaale la man daf ma bett man uniquement vraiment. tey bi sa biir wax yaa ngi naan dëmm rey la jaale la ana nan anam la la doxalee bi nga xamee ni euh, loolu am na. semblant laa ko jàppee parce que ñëw na yuuxoo ak ñun jooyandoo ak ñun di daanu si koom si koom nit ñi rien fait. vraiment dañoo daf ñoo décevoir daal. Mhm. tey wax euh, li nga dund ak Sën Ndiaye loo xam ni tey jii mun la marqué la lan lay doon loo ci Aziz. lu mu lu ci poosam dama naan ko yullil yullil yullil tonto yullil mu ni nii poos yi yoratuma dara jël nga sama lépp. daf ma dina ma wetal daal. tey jii tamit euh, gisoon nañu soutien de famille la moo doon aidé famille lu baree bari euh, tey jëf ju mel ni dal ci kawam te reyin bi dafa ñaaw. torop mënoon feebar ñu jaabante hôpital ba mu jóg wala yàlla jël ko ñu comprendre mais lii moom dafa ñaaw ñaaw na trop ñuy répété waat encore une fois justice soit faite na def liggéeyam si anam yu leer et sans preuve bu leer nañ la ñu bëgg gis. mais démb nga déggee ki nga xam ne moo di Nabou euh, def nañ ko li nga xam ne moo di mandat de dépôt ana lan nga yëg. kontaan te loolu doyul bu génnee ñun dañuy defaat bu gën a pire na xaar loolu. instant bi waxuñu à 100 pour cent moo ko rey dañoo préjuré rek nit moom. mais tamit dañ ko soupçonné. Sénégalais ko wax min la nab benn kàddoom rek moo ko yóbbul Aziz dee na et alors ñëppay mais yow mun ngaa def dara ànd nañ nit ki sax euh, safa problème am fa nga gunge nit ki yóbbu ba pare jël nit ki yóbbu ko hôpital sans prévoir euh, ay mbokkam te bu euh, nañu wax ni que ni li nga xam ne moo di relation dafa amoon seen diggante ñoom ñaar est-ce que yow nekkoon nga loolu xa loo yëgoon. amul gëmuma ko. moo tax nga ni dama gëmul rek Aziz doxu ci loolu. caaxaanul nekkul nekkul benn benn nit ku populaire boo xam ne day cuuc fii capp fii du du du fréquenté jigéen mais jigéen a koy fréquenté. kon da nga jàpp ni Nabou Leye moo moo xëcc fréquentation. moo xëcc fréquentation Aziz uti jiwul fenti fréquentation lu dul ndeyam ak baayam ak jarbaatam dara ñoru ko Aziz bu ma doon waxtaan moom ne ko tonton yow doo liggéey ñu fay la xaalis bi est-ce que liggéey métier la mu nañ ma jox kase bu baax. buñ ma joxee kase rek nga xam ne lépp dëgg la. Euh, kàddu yi nga xam ne jot na génn ci enquête bi am na yoo xam ne ñu ngi ko ko doon ji ay yenn wax yam mit nga di ko dégg lan yooyu yëpp ay wax gëmuma ko daal gëmuma ko. Mhm. tey jii tamit lu tax moo nga ni gëmu ko danga ko dund ak moom lu la marqué la ci moom tey ba nga wax loolu. dama koo xam nag. tey lan ñuy wax ci sa ndijaay tey loo xam ne sénégalais yi xamuñu ko yow en personne nga xam ko. nit ku yaatu ku baax ki nga xam ne ñi ñi nekk si ginnaawam dañoo bëri waaw am na benn maire boo xam ne keroog dama ko romb mel ma tey bu ma taalee sama kër añ Aziz moo tax dangay xool ci loolu rek ñi mu yoroon dafa bëri dafa bëri dañoo bëri torop torop torop. yan kàddu nga mujjee échanger ak moom. ci xewu caati yaayam temps Aida ma ne ko tonton maa ngi lay de après mu lay def stat mu ne dafa lu la neex jël kaw ba suuf foofu laa ko mujjee gis foofu lañu mujjee envoyé naa ko message mu lire ko mais xam naa ne bu paree répétition damay tontu mais jour boobu tontu ma. natt bi ñuy wax ni que nabula la na ko un million ak ay or est que mës na ci waxtaan ak yéen. non boobu déggu ma bi amul wala. ah wax dëgg yàlla ñoom daal ñoom ñooy demalante ñooy ñëwalante lu mu ko yoroo yàlla xam na man xam comprendre ma foofu dara. mais est-ce que bi loolu amee tamit ki nga xam ne moo di famille Nabou Leye ñëw nañ def li nga xam ne mooy seen njaal ah def li nga xam ne moo leen war. premier jour yaayam mooy jiitu si kër gi waaw ah, moom laa njëkk a gis ak jooyam waaw moom laa njëkk a gis. mu mel ni ngay waxee comme Nabou daf la bett. trop trop trop trop daf ma trop trop trop yaakaaruma ko woon si ñoom parce que man ba ma gëstoo moom laa ndi a gis si artistes yi moom laa njëkk a gis tam si danseurs yi. Mm-hmm. waale nga xam tamit demoon na dëkkali ji nga xam ni moo di Aziz Dabala seen seen seen relation nan la demee woon te nga yëg. Euh, kooku moom dégg naa du yaayam daa gaañu papam gaañu mu war a jàppale ñaari rakkam euh, ñëw fii nii Colobane du fa liggéey. mu gis Aziz bëggu ko Aziz jël ko adopté ko di ko defal lu baax di ko conseil di ko defal ay soutien di ko jàppale si lu bari ba kiri bi euh, rakk Pendo bi euh, dem dem ba gis ne nee na ko dama bëgg nga booleel ma sama doom bi ci clip bi mu jël bant teg ko ci mbaggam mi ñoom ñuy partagé lu bëri ñoom ñaar. nga xam ne na fréquenté fii kër yaayu. non mosuma ko fee gis. mosuma ko fay gis même tabaski bu jotee man Aziz rek laa fiy gis. kon daal seen xamante ñi ngi wax ay at yu bari mais démb xool nañ benn sërëm bi nga xam ne na ci 3 mois lay toll. yàggul ci moom parce que ñoom am na ñoo xam ne dañu naan 3 mois mais Aziz kii waale amul 2 mois ci Aziz Aziz moo bëgg nit rek. mais ñenn ñi di wax naan ko góor lan lay demee dëkkal moroomu góoram. Hmm, daa daka doomu. Waly baayoo ko. que loolu amee tamit gis ngeen famille Waly. gisuñu famille Waly benn tonton bi ñu interrogé woon ci site yi la ñu gis moom rek laa gis ma dégg ni Waly fee lañ ko denc Fass tey jii lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu bi tamit gis nañ tamit euh, feccikat yi tamit def mobilisation bu rëy euh, jaale ki nga xam ni moo di Yaay Aziz. li ñu def rafet na. mais looy commencé na ko continuer parce que sama maam dafa soxla soutien Israël dafa mel ni tonton Aziz rek la juróom loo wax danaan Aziz parce que millier bu mu nekkoon la ba guddee weesa da koy woo Aziz bul guddee ci ginnaaw raay bi on sait jamais mun nga nekk ci problème bu nekk tuñu du ñu yëg daa diñ ci boppam mais kenn du ko néewal doole. nga xam ne tamit Adamo dem na tamit demb euh, di di ñàkk li nga xam ne moo di bëgg collectif ay xaalis pour dimbali ki nga xam ni moo di yaayu euh, Aziz balaa moom Adamo na nga gisee tamit dool mu def ko ci live. ngor moo ñu gënal junni junni dina jeex te ngor du jeex. nga jàpp ne Adamo dafa gorewul ci affaire bi wala. ah lu waay def boppam parce mën ngaa di ket juróom génne ñetti dërëm yi lu waaye defal boppam daal après conséquence bi daal yàgg yàlla la mais bu la Aziz taxee jóg wala ay mbokku Aziz yàlla na yàlla jàppale kooku di def lool. dem ñu dégg sa ne ba ko gisee dikk daf ko bett tiit. waaw man xaw ma Serigne dama koy dégg nii mais man xaw ko. Hmm. mais nee nañ ci koñ bi la dëkk il paraît que ma magu rakku Aziz bu jigéen bi wax na que ni mbokkam mi ngi sëy ci biir kër gi. Serigne Sarr dañ koo digal si affaire yi mais moom cas à part la. waaw. moo tax nga ni cas à parce que cas à la loolu laa dégg. Euh, Aïda ci téléphone que tamit moom moo indil boppam soupçon man su man bu doon may moom sax duma ma jéem a manifester wu ci genre euh, wax yooyu noonu daal moom moo feeñee boppam lu tax nit ñi soupçonné ko moom moo feeñee boppam bu ci takkewul tam ñun daal suñu jot am na ne laal na ah parce que comportement am. dafa discré discret wul. ban comportement ci moom nga xam ne kii am na ci lu ci waxee sama papa euh, Modou Kane ne ko nañ tijji buntu bi. ki fa nekk borom appartement bi ne na dem woowu ji ay mbokk mi sës ci moom ba pare. ma koy forcer pour mu tijji. pare ñaari version am na ne nañ police moo indi ki dajji waaye sœur sa sœur bi nee na nabu moo indi ki dajji. nabu moo puus bunt bi tijji ko ne ko jubale si salle de bi waaw. ci xamoon dara. xëy na Aziz Guinée artistes yi ñun ñëpp ay doomu ndey lañ ñëpp a ngi nii naqarlu affaire bi vraiment ñëpp ko naqarlu di nuyu suñu njiit lay ananas borom Norvège parce que moo njëkk a yóbbu Aziz Dabala mu dem voyage waaw lii daal ñoo ngi koy ñaawlu waaw di wax ne waaw suñu njiit yi def nañ ci tamit parcours bu am solo parce que tamit ñun suñu njiit yi dama leen a wóolu torop torop torop torop man musuma tëdd xalaat ne ñi def ñaaw ñaawteef bi duñ leen teg loxo man mosuma ko euh, di ko naatable dama doon wax na gaaw mu gaaw gars yi xam fu ñu féete mais mosuma toog xel ñaar ne dañ leen di jàpp wala duñ leen di jàpp waaw. waaw adduna moom. parce que da daan jot ay menaces adduna moom saay man mi am naa ay noon. sëgam ki ñu gën moo am ay noon. Seydina Mohamed. ah kon man mi am na noonu keneen ak keneen ak keneen am na noon am dët waaw loolu moom du ci xuus parce que maak asis dañ doon ànd ba ma tuddee ko doom waaw ànd bi rafet torop ah waaw léegi bañ demee ba xam ne ku ci nekk yaa ngi demal sa bopp kii aw nii kii aw nii teewul ba tey mu ngi rafet n'est-ce mais bañeel daal yàgg na ci dëkk bi parce que noon man pour man noonu sax ci làmmiñ lay yem mais noonu ba ci rey moom kooku jéggi na noonu waaw waaw dem a déggante ak Aziz. moom depuis 6 euh, mois. 6 mois waaw parce que sama biir wax sànq nee naa la dañoo dem ba xëy na bokkatuñu yoon. kii aw nii kii aw nii teewul ba tey bu ñu tasee programme wala waaw. waaw mu ngi nice daal parce que euh, koo dem ba tuddee sa doom sa trésor hmm. kon kooku ah, doo ko bañ yaakaar naa. waaw mais liggéey am na fu muy toll ku ci nekk da ngay di la arrangé am déet waaw mu nekk nit ku baax maak moom ñu jóge fa def dikkoon mu rafet torop maa ngi nuyu Aline Ndiaye ki bind dikkoon borom Pikini production ñu jóge fa ah def leneen ak leneen ci dëkk bi yàlla boole waat ñu ci lay ananas ñu bokk group moom ba muy dem Russie man sax dewuma man dewuma waaw man ma moom moo demoon après à la man laa dem ba ñuy dem Qatar man ci lay soog a dem waaw loolu yëpp suñu borom daal du fay euh, du du du du fay kiy wax rek kii liggéey lay fay Aziz liggéey na ci aar bi loo xamante ni kenn jotu ko naan liggéey na wala liggéey waaw te wax dëgg fa yàlla ku amoon yoon la ku fi xajoon la parce que yaayam da ngeen Aziz dafa sonn ci yaayam ak papaam Aziz lu mu daw bu dee cent mille la cinquante mille seen kër lay jëm waaw kon kooku du ñu def lu dul ñaanal ko Aziz même ku ko xamul man damay romb ay nit bu may ñëw barke sëñ Touba damay dox mais nit ñi fu nekk lañ may taxawul di di di di di ñu ñaanal di ñaanal Aziz ñëpp waaw kon daal euh, ki jëf-jëf bi ñaaw na torop trop trop ñëpp ngeen bokk li nga xamante ni moo di milieu bi euh, tey bu ñu ne milieu bi kenn mënu cee génnee ki nga xamante ni moo di Nabou Leye ngeen koy dégg ci li nga xamante ni moo di problème bi tey euh, coow li bëri na ci côté lan nga ci wax waaw mooy li ma la xam nga mm-hmm. adduna moom adduna dafa doy waar te adduna kenn xamul nit parce que des fois nga jugé nit parce que man benn jour mos naa taxaw ak beneen di ne ko man du ma dem soirée buñ ma woowul man li may dem artistes yi li may wax yu bari xam nañ mu ne ma yow ak ni nga mel ni yow non gawuma la yow ngay dem ay lii ma ne ko pourtant du ma dem ay lii maanaam est-ce que comprendre nga mais nit ki buñ ko jugé ci solo ma ki waaw waaw yàlla daal moo xam nit te yàlla nañu yàlla sàmm dañu jox xel xel bu baax bu sell a xol bu baax. waaw mooy li ma la wax ñun ñëpp famille lañ. ñun ñëpp. waaw. ma ah, waaw. waaw nu ma ko gisee gisee ko tax na maanaam depuis sarax bi laa fi gëj. depuis sarax bi laa fi gëj parce que maa ngi naan non man yaay Aziz mënu ma ko xool. parce que ku tëddoon ba guddi ñu yee la ne la Nabou Leye dina bokk ci lii doo ko gëm ba tey nii may wax ak yow nii wa même bu ma gëmee des na quoi waaw parce que ba tey nii ku ba ma waxee man la non mënu ma gëm loolu parce que ak Aziz ni mu ma la nag Nabou Leye Aziz da ngay wax sax mu ne la Nabou Leye waa ngi seetaan benn sortie sama jooy keroog sama néeg mu ne Nabou lay sama doom la di ci wax lu rafet Aziz daal dafa nekkoon nit ku yaatoo yaatoo yaatoo yaato ku ku rafet xol Aziz man musuma gis billahi wallahi deena maa ngi ci maa moo ngi ci dëgg maa ngi ci fen mm. Aziz musuma gis mu mer Aziz musuma gis mu mer Aziz même tournage ko ni añ heure añ bu jote mm. non dañuy ree bay bëgg a dee Aziz du merloo kenn mm. Aziz suma gis mu mer. d'accord barke Seydina Mohamed. d'accord ñu gis ne faat bi daal dinay bëri lool ci li nga xamante ni moo di réew mi aussi bu ñu jëlee exemple vidéo bi nga xam ne Aziz mujj na ko def def ko ci site bi di wasaare moom li mu doon insisté mooy ñu teg li nga xamante moo di peine de mort ndax d'accord nga ci côté boobu aussi man de wax dëgg fa yàlla euh, du ma jug ci loolu. maanaam bu fekkee ko wax ñu rey man dinañ ma rey. Mm-hmm. mani dëkk bi nañ fa teg peine de mort. parce que fekk nit ci appartement mu ray ko parce que loolu dal ko mënoon na ma dal mënoon na dal keneen ak keneen yaa ngi dégg suñu papa Youssou Ndour mu ngi koy wax ci benn kii nee na moom it lii dal Aziz ni naroon na ko dal kon yooyu war nañ ci jéel a jël décision gis nga tubaab tey bu fekkee maanaam lenn day lore dina ci jël benn décision boo xamante ni même bu doon lore maanaam bu doon lor six personnes non non dina jafe pour mu lor benn personne nañ ci jël ay matuwaay yu mat sëkk mam la Aziz waxoon jëm si yàlla si loolu laay dëggalal sama tànk peine de parce que dëkk bi dafa jaxasoo man ci booru arène bi laa dëkk man du ma seetaan duma dem làmb mais bu ñu dóoree sama biir néeg la may te man pourtant dew ma làmb te maanaam boo génnee ci biti boo gisee booyi dañuy da ngay gis ku yëg saret këppoog saret bi kon dëkk bi nañ ci jël daal ay matuwaay yoo xamante ne muy yéen muy ñun muy keneen ak keneen. Mm-hmm. ñëpp ñu aar leen parce que tey ku tëdd sa néeg sa xel du dal. du dal bi amee barke sëñ Tuubaa mënuma lekk lu jàll. Mm-hmm. parce que toujours maa ngi xalaat am stress. parce que lii dafa ñaw waaw d'accord baal ñu Balla dafa am loo xamante ni. waaw. mënuñu jàkkaarloog yow ñuy dégg ñu naan Aziz di wax lu bi di wax lu ko xam loolu ñu mën a waxal ci loolu. waaw man li ma ci wax tënk naa ko mooy maanaam Aziz yàlla moo ñu boole te ko àndal ay kilibu euh, artiste sax bu ma la ko waxee sax xëy na doo ko xam ay kii emprunté te mu woyoon emprunté waaw ku tourné yooyu yu yàgg yooyu. nee naa la tourné nañ clip ñu jox ñu cent vingt cinq tourné nañ clip amuñu lu ñu fayee ñu dox mais ba ñu demee parce que Aziz maak moom ànd bu rafet lañ ànd vraiment ba ñu demee nag ba ku ci nekk wara a ber sa groupe man dama dem beru moom mu beru teewul ba tey affaire moo mu ngi naes maak Aziz barke alxuraan ba ni mu génnee àdduna maanaam mosu ñoo werante Aziz man la gën a rus ci mm-hmm. am na benn fecckat bu ñu doon àndal taxaw na fii seede ko maanaam du siggi xool ma Aziz samay ba may ngénte turandoo moom moo njëkk a indi sama ko ñoom Ndeye Gueye ak ñëpp kon kooku nit ku baax la man loolu laa xam ci moom daal parce que affaire u aar laa sekkoon nag moom a xameel bu dëggu waaw leneen li ci des nag li nit ñi di wax ginnaaw nit ñi ñooy taxaw palaasu yàlla ak palaasu juge juge nit kon loolu ñoo xam mais man du ma wax loo xamante ni suba dama fiy jógee ñu teg ak ma vaar naan ma kii moo fi waxoon lii man lu ma xamul duma ko wax waaw waaw